tey jii ñoom dem nañ ba gis ne secteur bi mu ngi bëgg a nasax ci wàllu syndicat mi ngi bëgg a ngi dugg ci léthargie ci wàllu syndicat ñu jóg takk seen digg pour xettali secteur bi pour taxawaat. redynamiser secteur bi redynamiser activité syndicale ci biir secteur bi jàpp na CNTS FC moo leen war a accompagner ci loolu loolu nag ñu am ci mbégte mu rëy parce que dafa coïncider aussi ak suñu ouverture campagne électorale ci élection de représentativité yi moo tax tey jii am nañ mbégte accueillir syndicat des industries alimentaire bi nga xam ne Cheikh bu notre camarade Cheikh bu moo ko jiite mu coïncider également ak ay défis yu mag ci biir secteur boobu parce que secteur la bu nga xam ne yàgg na ba ñu texte yi ko régir secteur bi yëpp ay texte obsolète la avant les indépendances 1958 si je ne me trompe ci la ñu signé woon convention euh, collective bu industrie alimentaire de 58 à maintenant lu bëri xew na fi àdduna soppeeku na fi ñu jàpp ne lu ñu war a soppi la te ñoom xar nañ seen tànk tubéy pour ñu soppi pour ñu euh, pour ñu pour ñu actualiser convention boobu nga xam ne synthèse force du changement dina leen ci accompagner. bon man euh, li ma jàpp mooy li tax ñu juddu mooy létargie bi ñu gisoon ci secteur bi secteur bi daanaka dañoo diviser ba maanaam suñuy action yi ñu waroon a boole combiner ko. yóbbu ko ci mouvement syndical euh, syndicalisme bu bu pur et dur ko woon. secteur la boo xam ni fàtte gi ñu ko fàtte moom moo tax ngay gis journalier bu ciy liggéey dix ans kenn du la contractualiser. secteur la boo xam ni tamit da nga ciy gis travailleurs saisonniers yi nga xam ni dañ leen di liggéeyloo liggéey boo bu bu métti te du ñu am travail bu décent. secteur la boo xam ni tamit aussi ñu ngi manipuler ay produits yoo xam ni à la mun nañu jural mun nañu jubal ay feebar yoo xam ni tooke yu métti lay doon. te liñ ci jaaxal lépp liñ ci jaaxal lépp combat yi ñuy mën a yëpp di dem vers l'inspection du travail ci yenn yenn yenn patron yi dañuy dem ba inspection da ngay jàpp ni seen volonté mooy ñu trouver loolu ñu tuddee PV de conciliation alors que bu defee PV de conciliation ba ngeen am ci ay points d'accord bu ñu demee ba ci biir ñu gis ni defu ci dara da ngay gis ni inspecteurs yi dinañ fexe ba def loolu ñuy tuddee mise en demeure mais ci la patron yi gën a dëgër bopp ñun tamit aussi ñu ngi interpellé inspecteurs yi inspection de euh, euh, euh, du travail ñu wax ñu tamit aussi parce que tamit mënuñu nekk des syndicalistes yoo xam ne dañuy yóbbu ay patron ci ci ci secteurs yi ñu nekk ci yoon ñuy dem ba maanaam volonté bañ ba loolu ñuy tuddee bañ a am PV de non conciliation sax pour nga génne ko fa sa tout un problème dañu la ciy sax d'ailleurs tëkku donc ñu bëggoon ñun. li nga xam ne moo réeroon ci industrie alimentaire ñu delloo si ko waat mooy travailleurs yi sentir que ni secteur bi am na ay syndicats yuy défendre seen àq ak seen yelleef